asalaamaaleykum mbokk yi Seydina Seck moo amaan mbégte ak bànneex rek dellu soor ak yéen seen vidéo d'actualité mbokk yi keroog dañoo junj woon benn waxtaan man leen dinaa si dellu si ndaxte diggee bor la muy ginnaaw ba ma waxee ci yorin bi nga xamante ne moom la kii di docteur Alioune Alioune Sarr yoree suñu CNG de lutte dégg nañ ginnaaw gi sax Doudou Diagne Decko génn tamit poser ay question yu nu mel ci mbirum koppar bi nga xam moom la ñuy daggee mbër bi ak yorin wi nee nañ sax koppar yu ñu dara dagg ci mbër yépp mën na sax tabax arène nationale mu nekk loo xamante ni euh, suite la ginnaaw ba ma sortie boobu tamit da ci am solo ginnaaw bi ñëwoon naa tamit ci yorin ak doxalin bi nga xamante ni moom la maître Augustin euh, Senghor bi nga xam moom lañ dénk suñu fédération sénégalaise de football yore ginnaaw bi dégg nañ presse bu wax ci keroog ba muy taxaw lu jooytu match amical yi ginnaaw bi dégg nañ fédération bi yëngu lu ma gën a taxaw wax nag tey mooy sortie bu am solo bi nga xamante ni moom la Amdy Moustapha fay def di ancien international mu nekk lu am solo ndaxte keroog maa tënkoon rek lu nu mel nee leen dinaa si ñëwaat moo tax nag tey ma ñëwaat si ñu war a jug taxaw ñun xam ni suñu football lañ nar a salfaañee ndax ñii ñu ko dénk amuñu compétence amuñu mën-mën amuñu xam-xam bu tax ñu war a mën a yore suñu football national c'est bien bon nag qualifié nañu dëgg la mais patriotisme joueur la ak entraîneur bi mais ci wàllum yorin ci wàllum doxalin lu bari lañu war a xoolaat lu bari jamono ji équipe yu bari seen calendrier taxaw na di football ay match yu am solo mu mel ni compétition bi déjà commencé na mais ñun ay Bosnie lañ ñuy wax di footballer ay Maroc di footballer ay France keroog sama vidéo bi passe lu ma leen waxoon ma ni leen lu mu bon bon bon waroon nañoo mën a taxawal benn match bu am solo Dakar mu nekk sax benn benn genre euh, tàggatoo boo xamante moom lañ génn di ref ak euh, ak public bi parce loolu mooy loolu mooy indi benn benn benn genre sympathie diggante euh, peuple bi supporter 12e gaynde ak l'équipe nationale lolou lañu ñu di def muy buñu dé dem dem coupe d'Afrique raw ak buñu ñuy waaji dem coupe du monde mais jël suñu match diko yobbu Maroc diko yobbu France di fa ay équipe yo xamante kenn xamul sax tay buñu xol classement FIFA luñu ñu kenn mënu kaa xam té 2002 équipe bu fi xarañ nañ ñoy xarañ bo xamante Sénégal képp ku mu footballeur match amical ko équipe mo koy fay mais nag nit ki moom euh, da nga may wax rek ki nga doon ma wax la li nga doon parce que tey bu ñuy xool maître Augustin Tine wax na euh, dama juum maître Augustin Senghor nga xam ni tey jii du xam-xam la yore suñu football même ba ci euh, wàll bu mu nekk di ci di ci bay wara muy muy avocat boobu sax amul amul fenn fu mu toj du ci baro ba tojul tojul tojul aussi ci stade yi mbir nak dafa am boo bu fa tollé dañuy weesu fo te taxaw xoolante ci bët waxante dëgg lu ñuy bañ moy juggé fa ñu naan woy parce que amuñu woon entraînement bu doy c'est-à-dire li ak la non non non non non légui lañu koy wax mu leer équipe yi ñuy talal nekkuñ ay équipe yo xamante ne am niveau international am niveau mondial man ma ngi xaar ñuy jouer ak ay match yo xam ay ay ay Brésil hein continant bu nekk équipe bu ñu fa dajal ñu jëm jéem a xool adversaire équipe ñu daje ak moom am na di jouer ak ñuy tollool pourquoi pas jouer avec la France am na ñeneen ak ñeneen ñu war a mën a fubalal mais nag Sénégal a ngi nii dañuy bàyyi ba mbir mu weesu ñu taxaw ku nekk taxaw di ngawti ngawte affaire bi fekk alors bañ ko waree wax jamono ji lañ ko waroon a wax télé yi organiser émission sport yi ngeen organiser ay débat yu ñu mel ñu ubbi seen bët loolu mooy dëgg am na Moussa Faye il a tout dit lu mu wax rek loolu moo am yoro ñu football bi ay stade yu baax mënuñu kaa am milliards yi ga xamante ne moom mooy dugg ci fédération kenn xamul fu muy dugg ay match senegal doo doo am match guddi SRT Demba Diop bañ leen ko joxe dañ ko taf tafee mi ngi nii fu mu mujj ñëpp xam nañ ko ay bakkan nañ ci mujj daanu rot kenn mu kenn mujjul fen fii la fi waa ji ñu dénkoon compétition tax naan wuy y avait plus de des centaines des centaines de policiers alors ñu fa nekk matuñu sax dix enquête boobu mujjul fenn fan la enquête boobu toll tey mbir mu Uzo am ñu sax fit dem euh, yow yow yaa des décision waa taas dagg décision boobu amoo sax fit def appel dafa bari ay mbiru cuune ay mbirum yoo xamante mi ngi xew ci football bi ñu taxaw di ko seetaan te du dëgg du yoon du dëgg du yoon El la Diouf lu mu daan wax dëgg la réew na yëpp mais am ak ñoom am maanaam ak anam bu mu daan waxee mais lu mu daan waxee dëgg la lu mu daan waxee dëgg la yaakaar nañu sëriñ ak xonjam moo war a moo leen fa taj moo war a moo moo ñu war a indil coupe non fédération boo xam ne capable ñu sax dem xool benn benn benn jeune ñu ngi ñu ngi wax euh, un certain Cheikh Diop bu Toulouse ñu bari ño xam ne ay jeunes yu compétents ñi ngi di football di toj Europe defu ñu ben démarche bu jëm leen xol na la ñuy indé ëllëg ci biir bu xalé boobu jëlé ay jëlé responsable dem def wóolu ñu taxaw lu nekk ñu waxo on a vu le cas de Mbaye c'est pas ça lu ñu def lu leen war tax bu ké dafa jëlé décision ngeen taxaw diko diko di diko ngawte di jaxase peuple bi pour lan loolu def leen lu leen war. Nous ngi yàq suñu football Nous ngi gagné d'accord ñu ngi jël classement bu baax d'accord mais yorin bi lañ war a xoolaat bi lañ war a xoolaat suñu championnat bi fexe ba championnat bi nit ñi population bi sax di dem di xaar match di parier mais Sénégal mooy dëkk boo bu jouer ay Paris, pari vieux nous sax euh, ñu ngi base du championnat France avec ça ngeen bëgg suñu ngeen football du parce que gëmuñu suñu pas nous ñu le football dañoo tële nit ki li nga sa carrière nous fenn de toj nga nga toj dara ci football bi soyons sérieux xool leen nu ngeen ñu ñu yore suñu football bi teg leen tegal la ñu benn calendrier boo xamante ne dinañ am benn match boo xam ne au moins dinañ ko jouer au Sénégal utal lañu ay équipe yoo xamante ne am nañ niveau mondial ci football. am na yenn match yoo xamante ne dem football ak ay sax ñoo ko gën doy na waar nag mbokk yi. il est temps de taxaw wax nañ Il taxaw faut pas ñu que médecin après la mort kere ba ko fi waxé ba ne ko fi waxé top peut-être mu euh, coïncidence mais deux jours après la fédération di réagir di ñu ay match ay équipe ay club mais lu bon réagir nañ d'accord mais du pas lañ doon xaar doon nañ xaar lu fort ay équipe yu moo fi waxee affaire arène nationale affaire CNG bi ab euh, trois jours après ci lañ gis du Diagne Diecko taxaw génn taxaw wax wax comme confirmé nu ma doon wax yëpp ay coïncidence la rek coïncidence la rek ba ma fi taxee wax ci kaaw Bougane Gueye Dany ni muy doxee ni muy doxalee ne après ci laa gis presse bi aussi ñu si bëri commencé di ci wax yëpp mu nekk coïncidence rek ñun suñuy rôle ak suñuy mission mooy di alerte di wax loo xam moom la ñuy sénta ñëwagul ngir ngeen ñu mën ko moytu mën si jël ay matuwaay maa ngi leen gërëm bu baax di leen sant mbokk yi di leen sa dolli gërëm di leen balu àq te di leen balu di leen jox dig daje ba seen projet incha allah jërë ngeen jëf.